outrage à magistrat ak ñàkk euh, de presse nationale bi nga xam ne moom amu ko. effectivement comme ni nga ko waxee le journaliste Sëñ Saliou Guèye nekk foofu noonu mm-hmm. euh, ca Sen TV. nekk fa mm-hmm. chroniqueur waaye nekk directeur de publication du quotidien mm-hmm. euh, yor Yoor et chroniqueur la Sen TV. moom nag gis nañ ne ndi ki bërki démb la jot li nga xam ne moom mooy ab convo ab appel agent de la police centrale pour une convocation. ndax dañ ko woo sax jox ko convocation ndi ki démb 10 la dem wuy ji foofu noonu ca euh, police centrale ñu gis ne lañ koy toppee du leen du usurpation euh, de fonction ak li nga xam moom outrage à magistrat euh, ñu gis ne tamit nee nañ ki nga xam ne moom mooy sëñ saa Gueye amul carte presse nationale moo waral ñu daal di koy euh, ñu daal di koy def garde à vue waaye tamit outrage à magistrat mais ku ne xam na ne mhm. euh, dëkk bi moom outrage à magistrat mun naa nekkul loo xam ne mhm. euh, lu bees la parce que mais nag am na ci lenn loo xam ne ñu ko war a gën a mën a taxaw mhm. mooy jàpp gi nga xam ñu koy jàpp journaliste yi metti na lool amul tànk ginnaaw de à chaque fois journaliste bu ñu génnee jàpp nañ beneen Pape Ndiaye nga ni mi ngi ca kaso ba Mati Mati Niang Euh, voilà noonu ne moom tamit ma ngi ca kaso ak ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Saliou Guèye mi itamit ni ki démb lañ ko def garde à vue mhm. Mhm. kon mun na nekk ay mbir yoo xam ne ak ci ñenn ñoo xam ne ñi ngi ci sous euh, contrôle judiciaire ñeneen nañ leen a bàyyi bàyyi ndëgandiku mhm. liberté provisoire lañ leen may Coro Coro Maxu Mandela Pape Alé Niang ki nga xamoon moom Babacar fii lañ ko woon après ñu bàyyi ba Babacar Touré tamit euh, sous contrôle judiciaire mhm. euh, la daal di ne kon moo lay wan ne euh, journaliste yi ñu leen di def metti na lool te bu ñu wax ne voilà moom dañ ko woo woon après ñu bàyyi ko mu dem mhm. ñibbi mhm. mais journalis yi na nga xam noonu lañ leen di def metti na wax dëgg fa ne yaa te bu nee ba ne quatrième pouvoir la presse bi am teewu ñu leen di bundu xatal teewul ñu leen di intimider teewul ñu leen di convoquer di leen def garde à vue ñu leen di tëj ndax lan xaw ma lan la ñu dee xaw ma lan mais dafa mel on dirait que ne ñun jàpp ni dafa am ñun daf maanaam dañuy dañuy déranger au fait mhm. on dirait dañuy déranger mhm. parce à chaque fois yaa ngi gis jàpp nañ kii pour usurpation de fonction jàpp nañ kii pour la outrage à ah, magistrat te man euh, Bamba Kassé dama ko déggoo muy wax que ne mhm. euh, képp koo xam ne amoo carte presse nationale ah, bu la jàppee kenn du la considéré comme un journaliste pour bu ñu jàppee moom yoonam du ci nekk wala ñoom tamit secteur boobu seen yoon du ci nekk parce que amoo leen carte presse nationale mm-hmm. ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, bi nga xam ne mooy journaliste bi bi bi bi bi bi auto gendarmerie bi feloon Yacine mm-hmm. kooku noonu dafa am récépissé mm-hmm. loolu moo per loolu moo tax Bamba Kassé ñëwoon fu moom ak ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome parce que am na récépissé boo xam ne yor na ko récépissé kon ku la day leer na kii carte bu ko yorul woon kon jàppale du ko am la vérité. Kanta si Saliou Gueye. keneen ak keneen si Saliou Gueye da nga ko mën a génne ci ci ci journalisme. mënul nekk mënul nekk. boo doon lim fii nii dix journaliste si Saliou Gueye daf ciy bokk. Mhm. kon léegi nag kooku da nga nekkee nekkoo journaliste tam nekk ci télé bu mag. Mhm. seen TV nekkul télé bu ndaw. di def di chroniquer. Mhm. di wax li nga xam loolu la xalaat ci réew mi après nga ne kooku yow nekkoo journaliste de. gis nga. <laughs> ndaw Sénégal gën a nekk ay am na ñoo xamante ne ay journalistes yu mag lañ. di dalal ay kilifa ay nangam. amuñu ñu sax sesti. voilà génnewuñu sesti defuñu journalisme wala nangam. Mhm. tey jii nii dañ ñuy wax ay waxu carte nationale de presse xanaa léegi nii la la commencé xew. c'est léegi lañ ko commencé laajte. mais si saa ñu ko mënu ko génne ci wàllu journalisme. mënul nekk mënul nekk xam nga la moo tax parce que tey jii nii sëñ Saliou Gueye peut-être il dérange moom moo tax. Ah. parce que lan moo tax moom mooy léegi jamono jii dañoo toll ci journaliste boo xamante ne gis nga boo woo askan wi wala di wax dëgg rek mhm. mooy dangay ngay am problème loolu moom mooy. loolu moom moo fi nekk ah. ay kàddu dëgg rek lay génnee. moom laa lay wax gis nga moom mooy. boo xoolee dëgg fu dëgg rek lay wax te amul sax far. dëgg am fu mu far. faru dëgg la faral. waaw léegi moom yób yóbbu nañ ko kaso. ba tey jii mi ngi ci sous contrôle ji jamono yee mi ngi fi laaj passeport am. pour dem euh, Paris pour faju ji ñu bañ. Mm-hmm. mu ne leen jël leen ko garaawul. jox naa leen ko. Mm-hmm. léegi Pape Ndiaye moom euh, anamu. Mm-hmm. fan la far mhm. ci côté askan wi la far mhm. wala ci dëgg la far léegi moom mi ngi kaso. Madiambal Diagne anamu. Mhm. c'est-à-dire fo nit ñi caaxaan lañ nekkee. Madiambal Diagne anamu par exemple Madiambal mhm. Diagne mi ngi fii nii. Mhm. et pourtant tey jii nii Madiambal Diagne. moom mën naa ni wax na fi lu ko neex. taxaw na fii nii ñu jugé ko tëj ko trois mois mu jël saagam en plein séance ci biir salle bi génn romb juge bi dem yoonam. lan moo gën a garaaw loolu noonu day am. Madiambal Diagne ak Juste Liko ñoom ñaar amuñu fi woon li nga xam ne moom mooy projet ci wàllu diffamation. waaw moom la merci beaucoup jusqu'à lenn loo xam ne mën na ko see jàpp. jamono yële maa ngi koy dégg mu naan ay maa ngi xaar sama ay avocat ñi kii mais dañuy renvoyer à chaque fois ñu ne renvoi renvoi ay tappale lañ ko teg. Mm-hmm. donc kon ñooñu tey jii nii. ñooñu xëy na ñoom ñooy lëmbee parce que peut-être ñi ngi nekk ci côté président de la république wala yooyu noonu. dafa mel ni dafa am benn deux poids deux mesures ci journaliste yi parce que da ngay gis ne que ñi taxaw di défendre askan wi à chaque fois même si terrain bi sax dafa am benn. Euh, sonal boo xam ne dañ leen koy xoxatal mais dañuy gis ne euh, ku faree ak état bi wala ku toog à chaque fois di waxal baax baaxu état bi dañuy gis ne que après ki nga xam ne moom mooy Pape nga xam ne moom moo nekk foofu laa bëggoon ñëw Papis Diaw dañ koo dañ dafa mbëkk nit mhm. en état d'ivresse mhm. donc tey jii nii kooku noonu après moom mu ngi continuer di def liggéeyam normalement ah. Pape loolu daal defu ko. donc et et la première fois loolu noonu dal ko boobu moo doon deuxième fois. donc kon tey jii nii ñooñu noonu la ñuy la la ñuy jël parce que lan xëy na ñoom ñu ngi wax lu baax. Euh, président de la république. Mm-hmm. wala yooyu noonu moom moo mm-hmm. tax. Mm-hmm. mais léegi bu fekkee danga wax dëgg yow dañ lay sonal. léegi kon léegi foog nga wax li nga xamante ne moom mooy du dëgg. pour léegi mais loolu fan la nekk. journaliste li nga xamante ne liggéeyam lay def. la lay def moom mooy collecter traiter diffuser li nga xamante ne mooy information. information donc léegi loolu noonu bu fekkee dañ la ko bëgg xañ mm-hmm. wala noo yow del del wax loo xamante ne amul mm-hmm. ah ñu demee bay favoriser presse international bi ci terrain bi kay. waaw euh, ce qui est la parce que tey jii nii loolu noonu xam nga lan lay indi mooy ndeyaa suñu président saa buy wax Europe lay waxee. Mhm. loolu kese lay lay lay lay ndiru. man loolu dara na ma récemment jamono yële bi bi bi euh, université booy di di di jàppante ak mhm. policier yi. taxaw naa policier bi dàq ma. Mhm. ma taxaw ak beneen journaliste bu nekk France 24 policier bi jël masque di ko may. jox ko ko donc xam loolu noonu man ko mais yow est-ce que tey normal yow saa waay xam nga dégage occupé xaw ma lan ôtez-vous de là xaw ma lan ak lan ak lan ak lan man sax damay ruus ma xool waa ji xool ko ma xam ni kii ndeysaan moom xëy na sax ay ordre la jot mais bu fekkoon nit dëgg dëgg dëgg la defe naa du ma tegal lii nii mu may tegal kii journaliste la parce que lan lan moo ñu utalee man ak moom couleur couleur xanaa te loolu complexe. c'est grave a demee noonu. nee na ko bandu parce que sa réew la sa réew la ñëw information bi mën naa ne yaa ko gën a soxla sax. Ah, comme moom dans les mu yow la war a gën manifestation gi am ñoom vidéo wala li ñuy am accès sax ñun ñu presse nationale bi du ko am. Mhm. non non xam nga sëñ Saliou Gueye des fois day day toog ak ñoo xamante ne ci nguur gi la ñuy bokk. ay à chaque fois baaraamu tuba bu ñu koy wax yow Pastef nga bokk yow nga bokk. Mhm. à chaque fois loolu lañ koy wax. Mhm. yow Pastef nga bokk yow Pastef nga bokk moo tax tey jii xëy na moom moo tax ñu koy tegal lii nii parce que yenn journaliste xam nga xam nga tamit dafa am mbir moo xam ne dafa am te sénégalais yi tamit loolu la war a mun a baax ku wax dëgg ñu ne la Pastef nga bokk ku wax dëgg ñu ne la Ousmane Sonko nga faral fii amul benn journaliste boo xam ne faral nga kii que ce soit parce amul benn journaliste boo xam ne benn politicien que ce soit opposition wala pouvoir mooy nii na sa ceeb kese mm, amu ci de. amu ci kenn tamit koo xam ne fayuñu la jëndaluñ la caméra wala tamit duñ la jëndal ndox booy naan booy wax di leen défendre. mais nag malheureusement Sénégal yoo toll foo xam ne da ngay wax dëgg. ñu ne la ñu ñu wut la ñu wutal la foofar ñoom ñoo la koy wutal de pas yow de mais ñoom ñoo la wutal foofar alors que dëgg nga fi nekkal askan wi nga fi nekkal parce que jàpp nga ne li nga doon mm-hmm. askan wi yoo nga doon ko ñun ñun bu mm-hmm. doon askan wi sànni est-ce que dinañ am li ñu am duñ ko am mm, mm. mais askan ñooñu seen kon askan li nga xam ne jox lañu ko ñun dañ leen ko war a delloo jox leen ay information yu wóortale jox leen li nga xam ne moom lañ li nga xam ne moom moo am wax dëgg sax

politique yi bien vrai que ne ñoom ñoom lay neex ñu teg ñoom lay neex mu bañ a teg parce que comme ay chaîne privée mais tamit euh, yow bu dee yow li nga doon askan wi moo tax ñu doon ko parce que publicité yi leen yóbbul pour ñu koy teg mhm. bu doon kenn seetaanu leen ko war a delloo mais mhm. nag malheureusement ku nekk da sàmm sa intérêt mhm. parce que jàpp nga ne lii boo ko defee lii ay daal mën na ci fekk lii mën na ci fekk lee mën na ci fekk moo war a chaque fois euh, ñuy dund Abdou Fall. dafa metti nekk na loo xam ne saltan kay saltan kay pour ci terrain bi rawatina ci terrain bi. dafa metti xam nga tey jii nii bu ñu nee ay amul carte presse moo tax ñu dañ koy kii ay usurpation de fonction ak yooyu noonu. Mm-hmm. cest à après moom. mooy comme li nga wax ndeyaa sànk boo mm-hmm. waxee dëgg ñu féetale ne la Pastef nga bokk wala serviteur nga bokk ah. nañ bàyyi caaxaan yooyu noonu c'est-à-dire même le terme neutre ça devient péjoratif mm-hmm. et ça après boo yow boo nee faruma kenn wala parfois nga wax loo xamante ne mm-hmm. tey jii nii nguur gi arrangé na la ñu ne eh kii de man la àndal xam nga ñu ñu kii la léegi nga wax leneen loo xamante ne ñu ne non kii ànduma kii àndul ak man daf ñuy daf ñuy xeex wala daf ñuy contre daf ñuy nàngam donc yow même boo neutré sax loolu léegi problème la fii nii ci réew mi alors que warul demee noonu pour man ku nekk de libre na pour mu wax li nga xamante ne moom mooy xalaatam ak li nga xamante ne moom mooy gis-gisam mais nag boo ko defee ñu topp la ci nàngam wala ñu topp la ci nàngam c'est c'est c'est grave doy na waar wax dëgg fa neex yàlla doy na waar Euh, doy waar yam parce que journaliste yi moom moment bi li ñuy dund nekk na loo xam ne euh, buñ la génnee léegi ba ngay espérer ne ah ñu ngi bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy journaliste yi euh, defe naa ne nga xëy ñu ne la tegaat nañu diw loxo te bu buñ koy teg gis nañ ne à chaque fois même daani wala xëy na lañ leen di toppee moo nekk loo xam ne benn la mhm. à chaque fois mu nekk loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yam agenda l'émission tira sans fin ma bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokk doon bàyyi xel voilà merci beaucoup Fatima maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax te la woon di mhm. feggoo yow bile plateau di jëfal suñ mbokk internet mhm. euh, yi nga xam ne à chaque fois dañuy bàyyi seen i yëpp toog euh, di ñu euh, taaxeelu ki ci mel ni Aliou saw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mhm. ki ci mel ni it tamit Alsane Kébé ah ki nga xam ne moom mooy bët bu rëy tamit ñu ngi koy jaajëfal